nee naa leen bu leen wane samay tara ndax des fois da ngay liggéey si am envie oyof anta doo jaw non bi waaw mais tuuti te temps yi dëgg bi dafa tàng tuuti sa élément mais tuuti déggul diggal sa na waa trop cheikh bi mhm. fi ngi toll nii ci réew mi mhm. euh, bañ fi tegee ab régime bu bees mhm. euh, dafa am également ci li nga xamante ni moom la leen askan bi fale woon muy yaakaar bi ñu bëri amoon ci ñoom mm-hmm. boobu la yaakaar nag euh, ci ñenn ñi ba tey mu ngi fi ci ñenn ñi yaakaar boo dafa tàmbalee wàññeeku ci ñenn ñooñu yaakaar gi tàmbalee wàññeeku nag li koy expliquer mooy dafa am euh, ay euh, mbir yu nga xamante ni acte yu nga xamante ni l'ancien régime dirigé par Macky Sall da ko fi doon def dem sax ba ñenn ngi doon wax naan Macky Sall dictateur la dem sax ba ñenn ngi naan jaay doole beeg liberté d'expression amatu fekk wax ñu jàpp la dem sax ba boobule jamono yow mii cheikh bi boo daan ñëw def émission mm. ñàkkoon ni sa ay mbokk dina am ñu la daan woo naan la cheikh bi xamal lay wax boo demee donc fi ñu toll nii nag on a comme l'impression que ni loolu lañ nekk di jéem a dundaat nànk-nànk mm. yow déjà ndax boobu gis-gis nga ci am ak aussi bu fekkee ni tey jii lu ni mel am na ndax lu ni mel war na am ci ñu nga xamante ni dañoo subir boobu lay injustice ba sénégalais yi xeex lañ ba ñu accéder tey au waaw jërëjëf euh, laaj nga laaj bu am solo boo xam ne actualité la muy arrestation yi am ci fan yi te yëpp jóge ci ay kàddu yu ay nit génne boo xoolee ñu bari suñ koy layal dañuy naan ndax ñi war nañ leen jàpp ci liberté d'opinion waaye loolu piège daf cee nekk boo xam ne réew mi waru ci tombé gis nga penda hmm. liberté d'opinion signifiewul anarchie dëgg la liberté d'opinion signifié wul diffamer nit wala sosal nit mhm. parce que ni nga amee liberté wu yëkkati say joxe sa opinion noonu la keneen ki amee moom it droit lu préserver image ci bépp citoyen mhm. boo xoolee ñi ñu incriminé depuis un bon bout temps dañu braqué woo dañu braqué wu ci régime en place bi ci ay kàddu yu virulent parce que piège lañ leen bëggoon tànd mooy débat bi posé wu suñu waxee ñu jàpp ñu ñu mettre ñu jéem leen a mettre en mal avec l'opinion ne leen gis ngeen la na woon fa woon Macky mi ngeen fi jëlee soppeeku suñu riposté wul ñu occuper terrain bi na ay bokkat lañ politiquement ñu gañe ci gain et loolu dañ ko teg ci ñaar mooy lut démocratique gu Pastef ci liberté d'opinion Pastef liberté d'opinion daf ko doon xeex kon bu faloo du xo du ko xeex moom maanaam du ko réprimer dinañ am sañ-sañu wax lu neex beneen bi mooy euh, maanaam liberté d'opinion bi buñ ko numtur am nañ droit wu exercer ko suñ ko exercer ñoom du ñu riposter cest à nguur gi warul nekk waru nekk otage yu ñaar lutte démocratique u Pastef Pastef daan na ko xeexee rek diw dana ko def loolu nguur gi warul nekk otage beneen bi mooy calendrier électoral bi ñi ngi ci ay veillu élection suñ leen attaqué duñ duñu duñu sévir li tax duñu suivre mooy dañuy bañ ñu jaxase leen ak l'opinion ñu ne jàppaate bi bëri na mm-hmm. boo xoolee depuis quelque jours la ñu jékki-jékki rek braqué wu ñuy wax ñëpp gën a virulent justement dañ ko calculer ak calendrier maanaam électoral bi ñu ngi ci veille ay élection man nag li ma gëm mooy pend liberté d'opinion warul tax état cédé mm-hmm. muy benn calendrier électoral maanaam calcul politique su ma ko defee l'opinion nan la koy gisee warul tax état cédé état dafa amoon obligation sévère ngir rappeler à l'ordre nit ñi ni ci état de droit lañ nekk dafa am ay règles ak ay chartes yu ko waaw beneen bi sonné la fin de la récréation mm-hmm. ku nekk dellu place ku nekk xam bopp l'état doit rester fort l'état doit rester mm-hmm. obligation de sévir ci situation bi parce que qu'est-ce qui se passe da gis ay nit yoo xam dañu xëy bi jékki-jékki rek braqué wu ci nguur gi di di yëkkati wax bu ñaaw di ko teg ci ñoom di diffuser ay fausses nouvelles di di jëmale ay attaques yu virulent dugal leen ci benn piège lii seen lutte démocratique la woon su ngeen ko su ngeen ñu bàyyiwul ñu wax ko rëñee ngeen seen bopp li ngeen doon xeex bu ngeen ñu jàppee ñu ngi ci ay veille élection danañ leen jaxaseeg l'opinion waaye est-ce que état bu sérieux war na céder ci ay calcul politique la réponse est moo tax état bi obligation la amoon sévir nii gis nga lii rappel la ku nekk dana delluwaat place ku nekk dana xamaat xam nga des fois yi fi pëccaxoo nga dóor ci table bi ku nekk toogaat position am loolu la état bi def te dafa lu président Diomaye waxoon keroog bi muy tas assemblée def na l'ordre politique sous mon na ne supplantera jamais l'ordre légal su état bi bàyyi woon nii ñu wax jàpp ne loolooy am ordre politique dafay supplanter l'ordre légal mooy ci ay calcul politicien su ma ko defee nan la ko opinion bi di gisee su ma ko defee ñu ngi à la veille des élections warul tax état bi cédé léegi xaaral ma ñëw xam nga liberté d'expression pend bokkul ak anarchie anarchie mooy wax li la neex diffamer ki la neex saaga ki la neex sosal ki la neex loolu même bu ko Pastef doon défendre bi mu nekkee opposition l'état n'est pas passif état du passif pend état dafa mu rôle bu mu war a jouer rôle boo xam ne waru ci intransiger pend loolooy tax man duma am sañ-sañu fekk la nga toog ma jaay la doole loolooy tax du ma am sañ-sañu toog caméra yi tàq ma tudd Penda Badji yàq ko lu nekk dem sama yoon loolooy tax du ma toog rek mu neex ma ma sosol x ou y parce que bu ma ko sosolee war naa mun a am ay preuve mooy l' de droit maam état de droit bu Penda xoolal du passif du APR du du du gëm sa bopp du keneen ak keneen léegi nag yow nan ngay comprendre une opposition boo xam ne da nga wax ni da ngay opposé wu avec l'actuel régime en mm-hmm. penda mm-hmm. ci façon boo xam ne l'actuel régime biñ nekkee opposant moom lañ doon opposé nit koo xam ne après dix ans de percu de persécution mm-hmm. xam nga nit ñi dañuy fàtte dara penn Macky Sall nit ñu xëyuñ bis di gàtt sa gàtt sa ak moom dafa dafa sës nit ñi ba ci miir bi nit ñi gàtt sa sa ak moom oh waaye sësuñ la ci miir nga gàtt sa gàtt ak nit tey Bougane Gueye Dany pour la nommer génn na këram penn gisoo gendarme gisoo policier gisoo ku ko ne jaaral yoon bi buggaan yoon bu ko neex la jël ak si buntu police ba gisoo kenn ku taxaw naan nitamit temps de oto yi jàll kii du jàll ba incident bi fam ay nitama fa taxawoon moo tax mu am am na wala amul gisoo lacrymogène bu dàq ay nitu buggaan waaye kooku xañu sa benn droit nga ne léegi da ngay opposé wu ak moom radicalement comme ki nga xam ne nga ne yow léegi da ngay wu ak moom radicalement comme ki nga xam ne dañ ko xañ droit dafa am benn volonté de de de manipuler l'opinion metre quoi en mal ak ñi nekk au pouvoir man nag li ma gëm mooy man moom républicain la man dama gëm ne état état la opposant moom am na bu ko neexee am discours opposant mais état moom boo ko yoree état la d'accord mais bi laataa sax ñuy ñëw ci ci ñi ñu convoqué benn par benn laata ñu mm-hmm. ñëw ci Bougane mm-hmm. laataa ñu ñëw ci le chroniqueur Kader mm-hmm. laataa ñu ñëw ci euh, yi mu Seck laataa ñu ñëw si ñoom ñëpp benn par benn dama bëgg d'abord ñu taxaw sur la forme ci ni ñu ko defee parce que sànq sa développement da nga wax lu am solo da nga ni euh, lu ñu mel maanaam euh, piège la mun nañ ne couteau à double tranchant la pour l'État parce que yaa ko wax léegi sa biir wax dañoo dëgmal ay élection ñu bëgg ci am ndam bëgg ci am majorité parlementaire euh, ñu am tamit président bi nga xamante ni ni nga fàttali li mu wax léegi ba muy doog a jël mi tamit ci ay discours am ci bi muy prêter serment daf ci bokk tamit kàddu yi mu waxoon euh, ni ci ci nguuram tamit dina fexe ba jàmm ak dal am ci li nga xamante ni moom moo di fi ñu nekk muy Sénégal ñu yàgg man ak yow janoo ci ay plateau ci ay jamono yi nga xamante ni dëkk bi tàngoon na lool nga bokk suñu daan wax ni Macky Sall dafa war a bàyyi mu sedd dafa war a pacifier li nga xamante ni moom moo di l' espace dafa war a bàyyi ku ne génnee li nga xamante ni moo nekk sa xol ndax réew mu ci nekkee ñu ne ab réewu démocratie la xëy na sax amaana ku nekk bu génnewu lu nekk ci xolam dana metti lool ndax loolu mooy indi xëy na plus tard violence parce que gis nañ à un moment donné ci nguuru Macky Sall Macky Sall bi mu sësee nit ñi ci miir bi dafa dem ba ñëpp dañu doon wàcc sur le terrain commencé di manifester foofu la sax manifestation yi tàmbali woon bëri donc bu ñu taxawee ci fee yëpp rappel pour rappel le rappel profite aux croyants ndax jàppoon da tey sur la forme loolu yëpp tey li fi amoon nguur bi dund ko ñun ñëpp muy ñun journalistes yi muy yéen chroniqueur ñun ñëpp ñu jàpp ni lii kat xoqatal la lii kat entrave à la liberté démocratique la naam nag nul n'est de dessus de la loi la loi moom elle s'applique à tous loolu moom dafa leer ku def lu dul yoon yoon dafa war a rëq sa ndigg mais ndax ñi nga xamante ni ëllëg ñoom ñoo doon xeex lu ni mel tey war nañ ko gis seen nguur sur la forme laa taxawee c'est-à-dire d'accord ñenn ñi bu ñu waxee ñenn yenn yi mun nañ ko déplorer mais ndax yegg seegum na woon nañ foofu ba fa ni ñu gis série d'arrestation yi nga xamante ni wax fa dëgg neex a jaaxal na ñëpp. xam nga da nga da nga laajte lu am solo ce que ñi yore le pouvoir waroon nañ gis ci ñoom vague d'arrestation yi nii mais xam nga Penda da ngay na. lii maam voilà une opposition boo xam ne penn elle sa radicalise alors que kenn xañu ko ay une première maa ngi door a gis loolu opposition boo xam ne elle veut sa braquer se radicaliser alors qu'elle n'est pas persécutée. mais ils sont dans mais pas de sa mais pas de se radicaliser. nangu na on s'oppose. dañoo gis Sonko radicaliser bu am li mu am. merci lii lii nag lañ faussé. mais ku def dara ba am ci dara. kay voilà léegi nag lii lañu faussé xam nga. lii la ñu moo tax en un moment donné yenn sénégalais jàppee ñenn ñi maam ñu ridicule attention Ismaïla kaay lijjanti sa euh, sa lii bi euh, penn balaa ngay radicaliser wu mais penn day fekk ñu persécuté la penn opposition bi tëjuñ leen jàppuñ leen persécuté wuñ leen xañul leen seen droit wax ma lan la opposition mës a def régime bi attaqué leen mhm. du daje du rencontre du salle de conférence du programme du caravane du dara amul lenn loo xam ne opposition bi def na ko. la di passé interdit nañ seen manifestation bi ñu bëggoon a am. non interdiruñ ko. si non non liiroo arrêté bi. Ah, dañ leen ne yóbbu leen ko feneen. waaw mais non non xaaral attention attention. dañ leen ne yóbbu leen ko feneen. parce que nee nañu ak ça non yóbbu leen ko feneen ak interdire nañ ko bokkul. non mais xaaral maa ngi ñëw waaw ñëwal ñëwal non manifestation dootul amati obélis. lu nu mel lu nu dafay entraver li nga xam moom moo di libre circulation bu weer bu bu berté bi. voilà li nga xam ngi nekk ci période nawet. waaw léegi yow penn dama lay laaj. yow xoola déglu rek. fii xoola ci rupture. waaw léegi déglu li ma lay laaj voilà c'est très important parce que man bugguma ñu ne lii daan nga ko défendre tey weddi nga ko pend déglul li ma lay la waa ataay bi ñëw na moom <laughs> gars yi kaay ñu naan sëm BRT bi opposition bi dañ ne na taxaw BRT bi na taxaw ñoom ñu manifester waa léegi bu BRT bi taxawee maire bii ñibbi géejawaay war a toggal ay doomam wala war a faj ji nit dafay toog xaar ki war a dem liggéey wala livre marché wala dem defi njaayam wala ñibbi dafay toog xaar mais obélisque manifestation mënatu fa am opposition comme pouvoir du moment que BRT bi dafay daw te buñ manifester day taxaw mais dem leen tànn beneen bërëb ñoom ñii waa Yewwi bi ñu leen daan aay ne leen du ngeen ko fi def mais yóbbu leen feneen dañ daan tànn feneen daye lan mooy indi terrain ACAPES. léegi lu waral bañ déposer seen demande boobu ba tey teeluñu leen notifier loolu. ah mais xam nga nag loolu mag euh, nu mu tudd maam procédure arrêté ah, préfectorale bi man miinu ma non attends attends dafa am délai. de dépôt am délai de euh, euh, réponse biñ leen tontoo yow parewuñ yaa gën a xam ne buñ leen auto kenn du fa ñëw manifestation bu nara am sa se sent yow journaliste nga da nga nekk ci terrain bi manifestation bu nar a feeñ yow da ngay sentir terrain bi manifestation xam nga bu buñ ko autorisé woon Abdou Mbow rek a ñëw doon ut leen xañee manifestation en fait mooy li ma dafa am piège bu l'opposition nekk bëgg tendre le pouvoir mooy ak voilà ñu leen ko bañal dañuy politique. bu mel noonu ci géew politique lañ nekk. xam nga man tey lu ñu dëgmal ñoo ñu man xam nga tey man. oui. Ah, xam nga fu ma doon xaar opposition. oui mais balaa ngay radicaliser wu mais xaaral ñu braqué la mais xaaral ñu persécuté la mais persécuté wuñ la régime bi dafa ñëw toog si à trois mois penda les gens se radicalisent et puis li ma la wax. xoolal kenn ci ñin jàpp bi nguur gi di door a toog trois mois et quelque boo xoolee waxam. dafa xawoon passif dañu dawal cinq mois yi rek dossiers yi commencé bouger convocation yi ñu teg pôle judiciaire et autres penda gars yi radicalisé wu comme pas possible acculer le pouvoir mais parce que jàpp nañ ni nañ leen dugal ci benn piège bu ñu riposté ñu ne leen li ngeen doon défendre démb ngeen nekk di def tey li ngeen doon xeex dem ngeen nekk di def tey vous vous êtes su ngeen ko deful ñu occuper le terrain na tàppale leen te nag kaay ma wax la. mais pourquoi ça devrait déranger. non ça devait déranger mais parce que Penda ils ils ne sont pas persécutés xam nga Penda tey su ma ñëwee di la nuyu pacifiquement nga jël yow position de xeex mais dinaa laajte. Penda lu xam mais dañoo dëgmal ay élections da ay élections. mais nañ politique. bu ñu bëggee am dara kay ku ci nekk yow yaa xam ni ngay def pour pour atteindre sa man xam nga non loolu nag man li ma. nañu opposé wu ñoom war nañ xaar pour ñu persécuter leen pour ñu radicaliser wu ñu radicaliser ah man li ma jàpp mooy kii radicaliser dañ koy persécuter parce que ñoom dañuy fàtte ne Ousmane Sonko 2014 la créé parti 2021 la radicaliser wu ci Macky Sall 14 ba 21 ñaata année la bi mu xamee ne Macky Sall mii waxut waxi politique bakkanam ji la soxla la radicaliser wu il en a récolté na ci tamit gain Sonko il en a payé les prix ah xaw nañ ko rey ci tali bi duur nañ ko toj otoom génne lëkkal nañ ko lacrymogène barricade nañ ko cinquante cinq jours risque bu ne dund na ko mais n'empêche récolté na tamit lim récolté mais yow nan ngay xëyi bis na yow persécuté wuñ la xañun la sa droit nga ne da ngay radicaliser wu ni Sonko mi nga xam ne bi biñ ko bëggee rey moom la radi mais loolu yenwul maanaa kenn bañul ñu opposé mais radicalisé bi moo moo moo amul place am léegi et puis nag léegi nag bi piège biñ bëgg dugal l'opinion particulièrement passif man laay bañ passif dugg ci maa ngi dégg ñeneen naan no buñ convoqué diw boo convoqué da nga koy may bës da nga koy créé fi nga prison créé wu fi benn homme politique gars yi dañuy jaawale de fii prison homme politique yi fa jaar yëpp dafa leen a dam Khalifa Ababacar Sall dafa amoon doole tout puissant maire de Dakar ñu tëj ko mu génn chuté Barthélemy Dias tëj nañ ko fi presque deux ans mu génn sénégalais fàtte ko mu jeex takk chétif yaa ngi koy wàll Idrissa Seck noonu keneen ak keneen noonu Ousmane ko kaso créé wu ko de dossier Adji Sarr moo révélé lim am ci l'opinion fi mu toll population mais du mais du affaire de prison moo ko créé léegi nag nit ñi. damay bañ ñu taxaw foofu naan. non mais bugaan mi buñ ko convoqué wala ñu jàpp ko dañ nangu naa li nga wax de. Mhm. waaye tamit da ngay nangu ni. Mhm. naam créé wu leen. waaye yokk na dara si ñoom. bañ leen jàppee. ñu ci bëri nag dafa leen dam. ba ci ku mel ni tey jii président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ah. biñ ko jàppee ñëpp jàpp ni lii président liñ ko teg injustice la loolu bokk na ci lu tax ñu bëñeen ñu bëri am sympathie si ñoom nous sommes d'accord waa léegi ñoom li nga xamante ni tey ji moo leen fal ndax ñoom war nañ ko jox ma war nañ jël arme boobu jox ko seen adversaire ba mu mun a fal ba mu mun a fal seen seen lii mooy piège gis nga li nga wax nii bu su nguur gi demee perd réew mi anarchie fay am mooy bu su opposant defee ñu ne non buñ ko jàpp ndax buñ ko jàppee may ko bës mu falu c'est très dangereux non pas ça c'est très dangereux xola fo merci xola foofu la gars nag bëgg dugal nguur gi maanaam opposant day am liberté wu def lu ko neex bu defee rek ñu ne noo attention ñun bi ñu Macky Sall persécuté la ñu am bës bu ñu persécuté kenn mais dootuñ jàpp kenn léegi pend lan mooy xew da ngay gis ay opposant yu am liberté de faire liberté d'impunité parce que c'est des opposants pend est-ce que nangu nga tey Bougane Gueye Dany duñ ko woo ci ay propos yoo xam ne jàpp nañ ci par exemple Bah Diakhaté ak Imam Ndao parce que Bougane dafa nekk ci ay liste mais penn kon na ñëpp dem dugal bo dugal seen bopp. ci ay liste ngi ciy ñëw léegi. donc man loolu la voilà léegi nag lii man dama gëm ni piège la te état waru ci sedde man li ma gëm mooy li président Diop Diomaye waxoon rek maanaam politique warul surplanter li nga xam ne mooy euh, maanaam lu légal boo ko defee rek dugg ci piège bi. tonton Thiaw mën nga ñëw jël kaas après yow <laughs> après lan mooy am anarchie. lu neex waay def lu neex waay wax lu neex waay def parce que lan c'est un homme politique candidat la kenn du ko téye man d'accord ma loolu. d'accord léegi Cheikh bi barki démb ñu njëkk euh, jàpp ki